leen wax ne que Amadou Ba était un bon candidat moi-même je l'ai soutenu parce que je suis dans la coalition alors que dans le passé tout le monde sait la dualité qui a toujours existé au sein de la coalition du parti entre Amadou Ba et Abdoulaye et moi tout ce qui est Abdoulaye je suis tout ce qui est contre donc je suis mais Abdoulaye Diouf Sarr jàpp li ko daaneel ci maire bi Amadou Ba n'a pas mouillé le maillot moi je suis un pro Abdoulaye Diouf Sarr hmm? si waxoon ngeen ni Amadou Ba n'a pas mouillé le maillot. et en retour on a vu que Abdoulaye Diouf Sarr n'a pas mouillé le maillot durant la présidentielle man gisuma ko. non non il a il a mouillé le maillot. il a vraiment mouillé le maillot. j'étais avec lui pendant. Euh, toute la campagne la a vraiment. non Birama da lay takk ni rek. waaw damay ko moom li muy wax waaw léegi léegi fu may fu may ñëwee. Birama fu may ñëwee mooy. Euh, damay wax ne Amadou Ba était un très bon candidat. très très bon candidat Euh, ñun ñoo am suñu candidat ba pare fragiliser ko ñu ko fragiliser mooy si suñu communication. Benno ou la paix il faut que ça ñu def le distinguo. non xam nga man defee une analyse. tout à l'heure wax naa la tu as posé une question. par rapport à la défaillance la défaillance c'était au sein de la paix ou au sein de Benno. c'était au sein de la paix j'ai le problème c'était mu gangréné le Benno Bokk Yaakaar. parce que en réalité c'est un ensemble n'est-ce pas donc c'est une chaîne. bu fekkee ne dañu am candidat candidat boobu noonu lu toll ni candidat présidentiel man mën naa wax sax euh, candidat au local parce que ku ne am nga droit nga may ambition et cetera suñ la jëlul nga kii loolu soo sax mën nañ ko comprendre parce que ça c'est la démocratie en réalité mais lu toll ni candidat présidentiel ñu am ko on opte pour la continuité ñu ne kii mooy suñu candidat suñu gañee ñu ñëpp ñu dem toogi suñu gañee ñu resté waat ay nit jóg di développer ay wax wala ay argument yoo xam ne ni bu si génn rek day fragiliser suñu candidat bon bu ñu ñàkkee ñun ñoo ñàkkaloo suñu bopp d'accord